yow du sax suur nga feeñ. déedéet taam na ñeneen ñu fa. wala yéen seen télé dàq ci télé yi. waaw. am na yeneen programme de. ko neex la waxul. xam nga man télé bu nekk ak la ma fay seetaan. waaw waaw man télé bu nekk. télé yow ngay seetaan. ñëpp laay seetaan waaye am na ñoo xam ne bu jotee rek ma taal waaw bu bis ba jotee rek heure waaw. mais am na yow. baax man soxor baax.

waaye booba fit maa ngi lay nuyu. Jacob mu ngi bëri combat bu compliqué ci carrière am. waaw combat bu bu compliqué. Jacob waaw Jacob ah, Jacob yéen a ngi may bàyyi may wax. non pourtant ah. maa ngi lay jubanti sànq. ku nekk bëri Jacob waaw bàyyi leen yooyu ngeen di def waaye. ah xam nga da ngaa xaw a fàtte mais garaaw. xam nga xam nga boo demee da muy bëri combat bu compliqué. ah ah war naa koo bëree reprocher war na koo bëree distance. kon da ko attention moom Jacob moom ci boppam dawul xeex. waaw. Jacob Balde Albour attention ñoom ñaar xeex nañu Jacob taw na jël Albour bi ñoom ñaar placage Albour bi bañ na. Zeko Baldé Albouri ñoom ñaar ñi ngi xeex xeex ñoom ñaar fan la ñuy mujj Jacob Baldé Albouri attention. Zeko Albouri xeex nañu attention combat bu doy waar Albouri sànni na Zeko fay na Albouri moo prolonge. Albouri moo prolonge dugg na ci carré bi Jacob dugg na ci carré bi Albouri dóor na. ñu ngi xeex xeex bu métti. ñu ngi xeex xeex bu métti ASBK yi. Jacob bi noonu ci xeex. Jacob Baldé arrangé ko al Jacob bëgg na dem waaye Alboury bàyyiwul mi ngi dóor ba léegi. non non ah, Jacob foofu arrangé wu ko. Jacob rapproché bi arrangé wu ko. a bëree wet. bu bëree wet bëri dina ah. moo gën muy bëree ci digg bi nag bu bëree ci digg bi. Ah. na bëree ci droite am. ah a dem. ci droite Alboury. waaw parce que bu ni comme ni ko koree. lii rek lii baaxul ci moom na bàyyi góosu Alboury bëree ci droite am. day génnaat day na génn foofu. day génnaat baaxul ci moom. baaxul boobu mu ñëw baaxul ci moom li mu war a def mooy bëreeg Albouri wet. Ah. wet la war a bëreeg moom. waaw waaw ndaxte Albouri moo ko prolonge. moo koy combat yu mel ni HBK Jacob toll na ci làmb fu mu waree ànd ak un tacticien. mu àndal ay mbër. Euh, waaw ay tacticien ay tacticien la ñu. bi xam nañu làmb. mën nañu làmb. mën nañu làmb dinañ ko wax li nga xamante ni moom la war a bëree bu dellu si waatee. ndeysaan HBK yi. attention za ko balde tukat na bu majul dina kawo za ko bu majul xex dina dina ko sonal waaw waaye beure mbeur la dina day beure alburi deugal day beure alburi waaw da ko don xej za ko don xej za ko balde alburi fi mu japp alburi dafa arranger alburi za ko balde alburi ñom ñaar fu ñu muju za ko balde amna lu mu bëgg za ko balde lim bëgg bu ko amé fu mu jëm la ilaha illallah Alboury day wane ni mu tey fi mu jàpp ci loxo bi dugg baax na. Aliou Ba dana combat bi lu ko waral loolu. non non waaw dafa am ku gaañu day fay jiwaat day fay jiwaat. day ji. Eh, xam nga lu nekk ci combat bi fanam. wala ndeysaan. xam nga lu ci neex. bu jëlee Modou Mbaye. xam nga Sakko xam nañu technique am. waaw waaye day génne technique gu Alboury. léegi nag xam nga li problème am na foo xam ne bu fa jàppee Alboury. Alboury daf koo prolonge. day def action pare Albouri day des waaw li mu war a def mooy yóbbu Albouri ba ci booru saaku yi mu bëreeg moom làng def action lamb ji mën a jeex ba pare action bu gaaw lay doon waaw kay bu gaaw waaw Jacob bu mu topp Albouri ci fi muy déplacé wu waaw Albouri chaque jour rek su ko arrangé rek lay jëm Jacob Baldé wàcc na jël na wax Albouri ñoom ñaar ci suuf la ilaha illallah Albouri relance bi âge baax na ci moom relance bi loolu moo ko may chance na ci moom mais baa ngi bëre xale baa Matar Diop suba teel ñu ngi nuyu. kooku te fii su HBK la. wallaay ndeysaan. xale bu baax Diouf ñoo ngi ca Angleterre. ndeysaan di ngi seetaan. mooy waajal Sidi Diop le 29 juin. le 29 juin ci Zénith bu Paris. ca Zénith. dem na Sidi Diop woy na HBK yi démb. Matar Matar Matar géewal fa. géewal na ndaanaan yu bari. ànd nga faag waa Viviane. ànd nañ faag Viviane ànd faag Waly. Waly Seck. attention a faak Pape Diouf ànd faak Pape Diouf HBK yi Jacob a ngi ut. Jacob li muy a ut. Jacob a ngi ut war na ko nomba Jacob Albouri Albouri la lance ba HBK ba léegi tegal 16. waaye lan la doon la ilaha illallah. daan na ko daan na ko la ilaha illallah. daan na ko HBK yi jël bi rëy. fekk ngeen bëri ci kër gi. boo ko doon jom def ci li am lu am ko wut ba pare. waaw kay Sarr Pape Sarr dof na. Pape Sarr dof na. ay béykat yi ñu am sa nattu rëy. wala wala wala. ndeysaan a bëri. laa ilaaha illallah. waay baa nga ne. baa nga bëri de. ah xam nga da xam nga bu